Mm-hmm. maa ngi nuyu auditeur yi yëpp di leen ziar. di wax ni émission bët set la émission boo xam day am si rajo bi chaque euh, semaine. Mm-hmm. du lundi au vendredi 7h ba 10h chaque jeudi dañuy dalal gan tey ñu dalal Boubacar Décolle Ndiaye. Mm-hmm. bakkar Décolle Ndiaye nag si gàttal. Euh, c'est un jeune sénégalais boo xamante ni mi ngi dëkk fii Sicap Baobab. Euh, di dem di nekk jàngalekat xam naa nettali ci lamul borom lay daxee. nekkoon Mauritanie. fa la ko état du Sénégal fekk jàpp ko. jiñ ko terroriste tëj ko ci kaso bi mu bokkoon ci procès imam Alioune Badara Ndao tey ko mu koy nuyu di ko wax salaamaaleykum Décolle ñu nuyoowaat ñaareelu yoon di la jégalu ci coono bi xam nga ak dang-dang yi ñu lay defloo mm-hmm. euh, su ma la laajee euh, Décolle euh, dalal la jàmm ci ci ci Top FM Décolle kan mooy Décolle Ndiaye lan mooy liggéeyam lan mooy liggéeyu Décolle Ndiaye ak kan la quoi ak fan lañ ko fekk ba ba appréhender ko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 moo di dimbali ko yàlla. Mhm. ba mooy julli si yonentam bi sallallahu alayhi wa bon mun nañ ne Boubacar Décolle Ndiaye benn sénégalais la mooy ordinaire rek. Mhm. benn sénégalais la ordinaire boo xamante ne fii la juddoo. Mhm. Baobab laa juddoo en 1983. fa laa juddoo école Sacré-Cœur. laa defee samay cours primaire mhm. ba am ba am sama kii ba am ba am sama ba am sama kii ba am sama kii ba am sama CFA mhm. après bu ma amee sama CFA Lamine laa nekkoon mhm. Lamine fa laa jàngee sixième ba terminal après nag bon ci biir nag mooy Lamine Gueye bi foofu. Mm. da doon am mooy ci biir kii bi yow jàkk ji ñoo xamante ne yow dañuy faral moo di waaraate noonu. Mm. léegi nag moo ci biir kii waaraate yooyu noonu la ñu commencé intéressé wu moo ci wàllu diine. Mm. moo ñu commencé di gëstu di jéem a xam lan mooy diine. moo di di si jéem a di si di si jéem xam. bon yàlla def nag bu ñu amee suñu bac moo ñu def ki concours. Mhm. ñu def benn concours G15. Mhm. mooy bi bi nekk fii ni mooy Sénégal. G15 waaw juste mi ngi nii ci waaw waaw fii si ginnaaw waaw. Mhm. bon yàlla def moo ñu am ko concours boobu. léegi ñu oh, léegi ñu yóbbu ñu léegi ñu yóbbu ñu si département BTS. bâtiment et travaux publics. bâtiment et travaux publics bon foofu deux ans lañ fa def moo ñu am suñu BTS mooy ci biir première année bi nag puisque mu wax naa mooy ci terminal bi la mu ngi fa laa commencé intéressé wu moo ci wàllu diine mhm. bu suñ buñ ñu defee bi nga xamante ne def nañu suñu première année mhm. après lañ dem tukki Mauritanie benn benn vacances gëstu ci wàllu diine alxuraan arab mhm. jéem a jàng noonu lañ dem après ñëwaat yegglu suñu BTS buñ ko amee suñu BTS bon toog nañ fi nag deux ans de 2006 à 2008 toog nañ fi deux ans moo di wut liggéey bon ñu ngi doon am ay promesse ay stage promesse stage mm-hmm. promesse mm-hmm. stage di stage di kii di taxaw di stage bon noonu nag moo ci kaw loolu lañ ñëwee décidé lañ décidé ni bàyyi ñu xool Mauritanie parce que Mauritanie yow lal la benn terre la boo xamante ne terre bu vierge la donc mm-hmm. terre la boo xamante ne en construction la donc ñun foofu mathématique sax moo yóbbu ñu ko woon bon bu ñu fa demee en en 2008 mooy BTS dem ci yenn boîte yi kii entreprise yi déposé après ñu ne ñun soxla nañ la wante problème bi mooy c'est-à-dire que yow fii nii coup d'état moo fi am Mm-hmm. dëkk bi yëpp taxaw mm-hmm. c'est-à-dire que léegi ñun soxla nañ la léegi yow ngay xaar tuuti mooy su dëkk bi commencé liggéey rek moo ñu wool mm-hmm. bon defuñu fa nag defuñu fa un mois après moo si kaw noonu la ñoo proposé pour nekk di jàngale mathématique ak physique chimique. bon bu ñu ciy jàngale mathématique ak physique chimique ñu ba nga xamante jàngale bi ça veut léegi chaque année. ça veut dire que yow do kii ça veut chaque année. jàngale bi da yokk. ba nga xamante ne toll foo xamante léegi yow BTS bi kii wutuñ ko woon wutuñ ko woon. parce que ça veut demoon nañu ba nga xamante ne yow nañu gisoon nañu suñu bopp. moo ci wàllu moo ci wàllu ki cest à lan moo ñu fi indiwaat mooy kii bii nii mooy jàpp bii. arrestation bi ah. moo ñu fi indiwaat en 2016. Hmm. léegi ba ba nga bu ñuy bàyyi nii kii en 2018. ok euh, donc donc ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi la arrêté Mauritanie euh, est mën nañu xam fan exactement la ñu arrêté ci Mauritanie ak ci lan lañ la fekkoon bi ñu arrêté pour yow hmm. euh, Boubacar lan moo waral wàllu bu ñu lay arrêté mu nekk ci wàllu diine. parce que Mauritanie fa nekkoon di jàngale ci diine wala da nga da nga comme li nga expliqué ci waara tey li nga expliqué fii d' abord. mais lan moo lan moo waral ñu fekk la Mauritanie jàpp leen yéen ci wàllu diine. ak mhm. arrestation bi nan la demee bu bokkaat. ok comme comme sànq mu ko waxee woon mooy 2005 euh, bi mooy vacances yi. Mhm. demoon naa Mauritanie dem jàngi. bi mu fa demee dem jàngi mooy vacances yi 3 mois yi. Mhm. mois sax fa def. léegi foofu laa foofu laa ñëwee xamante Mouhamed Ndiaye. Mhm. Mouhamed Ndiaye moom tamit dafa ñëwoon tamit moo di jàngi. Mhm. léegi 2000 euh, après nag moom yow bu mu ñëwee jàngi après moom dafa ñëwaat Mauritanie toog foofu moo di liggéey. Mhm. léegi nag moom pêche lay liggéey quoi napp léegi yow bi nga xamante ne 2016 mooy yow ki takk naa jabar mooy ñaareel. njëkkoon naa takk jabar. en 2000 en 2006. léegi 2016 bi laa takkaat ci beneen jabar. mais yow bi nga xamante ne takk naa beneen jabar. dama ko woo. Euh, ça veut dire sama xarit la. Mhm. dama ko yëgal ko ni yow takk naa jabar. Mhm. bu léegi nag yàlla def bu mu ko wooyee yëgal dégg na takk naa jabar moom lendemain si moom lañ ko jàpp. mooy ça veut dire que Ndiaye ba Mouhamed Ndiaye ba Mouhamed Ndiaye lendemain lañ ko jàpp waaw lendemain waaw foofu noonu Mauritanie mhm. Mauritanie lendemain lañ ko jàpp xam naa bu ñu ko jàppee xool ay appel o mooy dernier appel après ñu ñëw si man waaw yow yaay jàpp na la kenn laaju benn question foofu mais mais avant loolu est-ce que def euh, ay ay maanaam genre ba ay waaraate ci yoo xamante ni da doon xaw a dëgër. non non foofu moom Mauritanie moom mun naa ne foofu luñ fa nekkee woon mooy liggéey rek lañ fa nekk woon. Mm. cest foofu moom laa doon wax kii bu juge bi su ma xëyee huit heures dix heures laay wàcc aw ma dimanche c'est-à-dire demande bi foofu yow demoon na ba nga xamante ne mooy bëri woon na quoi damay xëy de huit heures à dix heures yow su ma demee ba sonn ba nga xamante ne sonn naa man maa ñëw woo ñee ne fay fay sama portable ne lan damay c'est-à-dire foofu noonu bon yow loolu moom enquête bi moom wala ne ko moo tax ñoom jéemuñu sax wax ñu sax wax saa à yow lan nga nekkee woon Mauritanie parce que ñoom si boppam mooy biir enquête bi juge bi ak tribunal kenn laajuma lan nga nekkoon Mauritanie te foofu cest à yow doo mun yow doo mun libre pour wax c'est-à-dire da ngay poser question nga mooy nga tontu loolu soo bëggee sax développé. ñoom gis ni ça veut dire que développement bi ça les arrange pas da lay coupé. Hmm. da lay coupé. kon yow da jàpp ne euh, conversation bi ngeen def. moo la moo tax ñu jàpp la. non non non non du loolu man man la laa tax mu jàpp ni mooy tombé la rek c'est-à-dire que lii nii n'importe qui yow mënoon na ci dal mooy c'est-à-dire que mooy lan la mooy ñoom c'est-à-dire que jot nañu ay fonds. Mm. jot nañu ay fonds ñoom c'est-à-dire que ñoom si boobu ñoo ko wax. Mm. dañ leen jox 80 milliards pour lutter contre le terrorisme. c'est-à-dire que mm. fonds yooyu doo ko jot ba pare. doo def benn rapport. Mm-hmm. doo ko jot ba pare après toog nii comme ça. c'est-à-dire que jot nañ ko fa la ñuy def tout pour lan ma justifier fonds yooyu. Mm-hmm. léegi nag pour nag justifier foo yow fan la ñu jàpp. Mm-hmm. fan ñu jàpp léegi nag ñoom dañuy xool peut-être loo xamante ne yow suñu jàppee wax moo ci kaw ni sénégalais yi seen xew mun na ñaaw soo nee Mauritanie ah ñii Mauritanie lañ jógee nangam nangam fa la ñuy yem. bon ñun sax dégg nañ ci presse bi mooy sama mag Tahirou yow moo ko doon wax. Mm-hmm. nañ sax ñoom même loolu maa ngi doon wax ci kii tribunal bi wala juge su moom coupé cest à dañoo taxaw télé ne am na huit personnes ñi nga xamante ne dañuy dem Libye non non dañ ne ñom day dem sidi mm. ñi leen di dàqe fek mo ñu jàpp nañ ba fa ñi na amna 8 personnes yo xamante ñi dem sidi ñi leen di dàqe ñoom jël lendemain ñu ne eh, japp nañ leen après toogaat ni eh, indi nañ leen japp nañ ba paré loolu manipulation la pour wone ne ça veut dire que moy tay yow la mo ci gëna a ta mm-hmm. c'est-à-dire que tey da ngay taxaw mu leer na ni ça à dire li ngay wax ni mo du deug ta dire que da ngay tuumaal ay nit tuumaal seen famille tuumaal sen soxna tuumaal seen doom moo du ma di fen mhm. parce que ça dit journaliste yooyu moo di def lool ñom ñoo la gënoon xam ni cest à que mo du mujj fenn mhm. lool motax mo ñu am fitu moy def lool te lool so taxé pour wax ko da leen yow tribunal bi ñoo taxee pour wax ko boobu parce que juge bi dam ko ne cest à que ñun ça dit que yow dañu japp nak lañ sénégalais donc sénégalais ils ont le droit de comprendre mhm. première chose bu ko ñëk wax dam ko ne Mouhamed Ndiaye yéen da ngeen ne yeen da ngeen moom dafa bok ci benn cellule benn Libye benn cellule bu mu créé Mauritanie moom nee na man ci cellule boobu laa bokk léegi moom non seulement nee na moom créé cellule nee na kii si boppam xam man cest à man ak moom sax yow duggante wu ñooñu sama xarit la moom sama xarit bu baax la. Mhm. léegi mën na ko léegi dama boo xam yéen c'est-à-dire que fan ngeen basé pour wax ni saa à dire que man dama bokk ci cellule ak kii dafa am cellule du ko mos a tontu. Hmm. du ko tontu parce que mënu ko tontu. Hmm. c'est-à-dire que léegi nag si danger. danger bi mooy c'est-à-dire que da ngay def loo xamante ne ñëpp xam nañu c'est-à-dire que li ngay wax ni ay manipulation la moo du mujj fenn. d'accord mais yow ñi la jàpp euh, Mauritanie police euh, sénégalaise la wala mauritanienne. police mauritanienne moo ñu jàpp sur l'ordre de police sénégalaise. Hmm, ngeen am foofu ñaata jours. am nañ foofu six foofu six jours lañ fa def. six jours six jours lañ fa def. donc leen indi Sénégal. Hmm vous êtes sur la 107.0 la meilleure radio musicale Top FM émission bi set am aljuma 7 h 10 heures. Mhm. Euh, chaque jour yi dañuy dalal gan. ñu dalal euh, nga xam dañ ko terroriste fekk ko Mauritanie ah, ko ñetti mu ci procès imam ndaw bi taxaw ci bañ ko itam bañ ci juge bi. bañ ko mhm. dañ la dara tay moom la ñuy dalal di waxtaan ci ni ñu ko jàppee ak lan la dund dund bookat fi muy ñëw ak yow mooy euh, déjà jàpp fekk nañ la Mauritanie jàpp nañ la loolu leer na ci ñi déglu bi ñu la jàppee euh, indi nañ la fii police mauritanienne moo la jàpp jox la police sénégalaise ñu indi la fii bu ñu leen indee euh, gendarmerie xanaa dé gendarme xanaa déglu nañ la maanaam def nga procès verbal am toog nga ñu ah, ñu entendre la lan la alkaati bi wax bi hmm. gendarme yi téye fii bi nga yegsee Sénégal waaw léegi bu ñu jàppee la moo ci gën a yéeme

am na fa am na fa sax yow ñoo xamante ne laaj ne leen saa à dire léegi yow da ngay seetaan làmb man moom laaj ma ko mooy comme euh, kii kii moon may dem. kon bari woon ngeen. ah waaw huit la ñu woon huit la ñu woon am na fa ñoo xamante ne laaj nañ ndax dañuy seetaan làmb waaye yéen loolu xam si imaam may ñaa c'est-à-dire que mooy ñoom dañ doon foo quoi mu ci tënk. dañ doon foo c'est-à-dire question yooyu soo ko xoolee déglu ko. Hmm. day xam ni ñii si boppam yow doon foo. préparé ñu woon dara loo xamante léegi léegi bi ñu leen bi ñu leen jàppee ba andi leen fii comme ni nga ko waxee euh, bëri woon ngeen huit personnes ngeen est-ce que huit yëpp lañ tëj huit comme yow liñ la tëj wala. non ñun si huit yi dafa am euh, ñaar ñoo xamante ni dañ leen tëj. Mhm. keneen ki bon je profite moo de l'occasion pour gars jéem a xam mooy kaam kooku mineur la. Mhm. Mhm. mooy euh, mooy kii mooy kii Mouhamed Seck. Mouhamed Seck kooku mineur la kooku benn booy la boo xamante ni. moom ça veut ko moom da doon tukki comme nu gars yi di tukkee ni mooy libi mhm. moom mooy dugg ci kaar bi moo di tukki libi après noonu mooy ñun bu ñu jàppee mooy yow ñun set lañ ko fekk ci kaar bi mhm. téye ko indi ko boole ko suñu biir mhm. booy bi dañu dafa ñëw dugg ñu ne ko waa yow lan la mu ne mu ne waa moom da doon dem tukki libi affaire lañ ko indi yow mu laaj ñu yoon yéen la ñu ne ko ñun dee ñun terrorisme la ñuy toppe booy bi sa à dire mooy koo xamante ni mbiru diine xamu ci daara daara daara daara xamu ci daara daara daara daara benn mineur la mooy comme booy mbedd yi rek. léegi ana moom mooy bon léegi léegi moom tribunal bu ñu taxee hmm? dañ ko ne yow mënuñu la juger mun ñu la jugé parce que mineur la léegi xamuñu ndax bàyyi nañ ko wala bàyyiwuñu ko. mais mais huit huit yi nga àndaloon daal ñu ci bëri bàyyi nañ leen wala ñoom. waaw ñu ci des ba léegi mooy huit moom la deux personnes lañ lañ ci jàpp. ok deux personnes lañ ci jàpp booy bi mineur bi. boo xaw ma kaam ndax bàyyi na moom moom tribunal yow dafa ne si boppam. Mhm. ça veut dire que mënu ko jugé quoi. léegi cinq yi kii nañ leen bàyyi nañ leen. ok génnee nañ leen. ba léegi rek jili bu fekkee. Ah, ah, léegi euh, ayca Ida. acca euh, boo amaatee benen question wala ñu dem euh, pause musicale. non non non parce que maanaam la question pause euh, musicale. <laughs> Eh, Karim dooral sa question boobu mënoo ko bàyyi. ok damay damay ñëwaat si déjà jàpp nañ leen. Mom mhm. gendarme yi laaj nañ ko. Mhm. li ñu laaj gis nga ni nekkul sax parce que man dafa am lu ma remarqué ci procès bi ci ci ci procès bi que procès verbal c'est-à-dire bi ñuy wax ci walu li nga xam moom la gendarme jébbal juge d'instruction bi gendarmerie jébbal juge d'instruction bi à chaque fois bi gis te dafa méngoowul dara ak ñu don taxaw ci bar bi parce que biñu ñuy def procès Imam Ndaw y avait plus de 32 ño xam ñi ngi taxaw ci kanam ci kanam juge bi mm-hmm. mais dama gis ni à chaque fois ku taxaw rek da ngay am jaawatloo ci li nga wax ci ci ci gendarmerie ak li li procureur di lire ak li ñi lire ci procès verbal bi ne moom la bindal cest dire lolu lolu en général d'école la moko ko indi lan lan moo pour yow. gendarmerie bon loolu que nous mm. si boppam dañuy dañuy ñëw nga mm-hmm. que loolu mooy problème bi yow yow nit ki moo ci fekkee moom. Mm. quoi procès verbal ni ko signé. Mm-hmm. à dire que signature boobu amul sens. Mm-hmm. parce que yow looy signé mooy loo xamante de yow comprendre ko man wax def. fa yow yow tribunal yow wane na ko fa sans avoir loolu moom xam nañu ko te la moo si gën a pire mooy yow si ñoo xamante ne mooy ci wuñ jànguñu mhm. peut-être yow ñun ñu amoon na kii quelques cas xamante ne yow jàng nañu yow yow da ngay gis ni mooy si procès verbal bi mhm. ñoom après dañuy jéem a def ay jeu de mots bon ñun loolu ci nañ ko quoi comprendre nañ ko dañuy jéem a def ay jeu de mots yow soo waxee benn wax mun nañ fa changer beneen mot boo xamante ne moo dee gën a vague moo dee wala mot moo dee gën a flou moo soo taxee nga ne man lii ni waxuma ko woon te man lii ni si boppam liiruma ko woon loolu moo ko waral quoi mhm. Euh, may fàttali yeneen ci 107.0 la meilleure radio musicale Top FM émission bi euh, mi ngi tudd ba bët set mm. ñu koy def altine ba àjjuma 7 heures ba 10 heures mm. chaque alxamis dañuy dalal gan di ko def man nag Jili Bagdad ak Sista Ida. ak euh, Aliou Guèye tey ñu dalal Bocar Décolle Ndiaye mi ngi ji ñoon présumé terroriste tëj ko ñetti atu kaso Décolle bu ñu la jàppee yàq sa jàngal jàngale yàq sa liggéey indi la Sénégal tëj la ci kaso bi mu leer yow yaa ngi ne ci kaso bi te defoo dara mm. ñu bàyyi la nga génn. Dégol lan mooy nan nga nan nga dundee kaso bi cest à bi nga nekkee ci kaso bi en tant que innocent mu wér wóor ni yow defoo dara nan nga dundee kaso bi noo ko dundee ak li nga fekk ci kaso bi ñu nekkoon ci kaso bi yëpp xam nga ak ñeneen ñi nga gis ñeen ni jiñ chaque jour nga dégg média bi Dégol Ndiaye nangam nangam nangam nan nga ko dundee en tant que en tant que jeune sénégalais bu nekkoon ci bu nekkoon di dund di dund diineem ci jàmm mm-hmm. ñu indi ko fitna boobu noonu nan nga ko dundee naam waaw bon kaso bi moom yow ni ñu ko dundee moom ci woon na métti woon na quoi wante ñi ñi ngi ciy jaayatal mooy sant yàlla. Mhm. yow yow bi nga xamante ne moom moo ñu jox force mooy nekkul suñu kàttan nekkul suñu pouvoir nekkul dara yàlla moo yërëm rek jox ñu boo xamante ne yow mën nañ ko romb. léegi yow kaso bi la moo ci gënoon métti mooy c'est-à-dire que mhm. tuuma. bi yow moo ci gënoon moo ci gënoon garaaw. mooy yow tuuma yow dafa garaaw yow pour nga am benn idée moo si tuuma yow dafa garaaw mooy Yuusuf alayhi mm-hmm. bi nga xamante ne moom dañ ko dañ ko daan tuuma ne ko bi ko moom da doon sàkku jabaru buur bi kooku sax nekkul buur bi mun nañ ne mooy vice mooy deuxième deuxième personne moo si buur bi mm-hmm. c'est-à-dire que da doon sàkku jabaru euh, euh, waaw mën naa ne waaw kooku quoi buur bi mm-hmm. léegi bi nga xamante ne yow tuumaal nañ ko ba nga xamante ne ñoom si boppam am nañ preuve ne Yuusuf def ko wante dañ ko la dañ ko la jaay doole parce que lan mu ñu ñëw jox Yuusuf benn étranger benn étranger la ñaaree bi jaam la jox ko dëgg ci kaw bi daal di koy dugal moo ci biir mhm. bi nga xamante ne moom léegi yow def na mooy jëntam boobu moo ci tënk rek ba ne ko kiiwal yow génn ne ko léegi buur bi si boppam moo la woon ne pour génn dafa ne génn ma buñ ko ne jënal kaso bi dafa ne génn ma da dafa ne lan wax leen buur bi mu laaj jigéen ñi taggoon seen loxo lan moo tax ñoom ñu ñëw dagg seen loxo pour lan pour daal di seetal boppam. pour daal di seetal boppam léegi ñun bon yàlla def na moo ñoom taxaw nañu devant tout le monde nit ñi defuñu dara c'est-à-dire que loolu noonu mbir boobu ci boppam moom mooy ñu loolu loolu mbir boobu moom mooy gën a wàññi mbir bi. mooy c'est-à-dire que tuuma bi. Mm-hmm. Mm-hmm. cest à pour lan mooy yow seetal sa bopp. parce que tuuma ci boppam dafa garaaw. Mm-hmm. tuuma dafa booy tey comme nu ko Karim ñu faral waxee tey su la jiinee terrorisme mooy jiin leen la dëmm. cest à yow cest tañ leen la dëmm.

ñooñu dañuy génn du matin au soir. waaw léegi fii nii dama leen bëgg a wax yéen c'est-à-dire que kat ngeen fi gis ak xottu ba xottu butéel kan ngeen fi jàpp ak lamset c'est-à-dire que léegi yéen seen seen seen. doxalin bi waaw doxalin bi ban but la am. c'est-à-dire que léegi yéen doxalin bi méttital bii nii mooy yow dans quel but c'est-à-dire que yow objectif lan la. jubluwaay bi daal jubluwaay bi. Mhm. waxuma ko wante man xam nañ ko. c'est-à-dire que ñoom dañoo bëggoon créer ay monstres ñoom dañoo bëggoon créer ay monstres c'est-à-dire que yow doo fekk yow nit ki mooy ci biir këram miy liggéey pendant huit ans nga jàppee ko foofu ci biir këram génnee ko teg ko condition yooyu peut-être yow yàllaa ñu jëmbali rek yow condition yooyu comme ça nga ñu ngi ko waxee rek yàllaa ñu jëmbali wante ñoom soo xoolee bu baax ñoom seen but c'est-à-dire que loolu la woon c'est-à-dire que méttital méttital nit ki teg koy conditions yi dara métti bu dem yow ko xamante ne biir këram yow

say soxna ak say njaboot mosuñu buñ la mosul dégg ci mbiru terro terrorisme ñu jekk-jekk ñu ne jàpp nañ la ci mbirum terrorisme sa bokk ma lañ ko dundee woon. naka lañ ko dundee woon Ah, ok donc euh, jàppal euh, question boobu. baax a donc donc dañuy dañuy dañuy dañuy baye ci sa idée antenne bi. ñu ñu dem ñu dem ñëwaat si sunu gan gi mais fàttali gars ni yeen ci 107.0 la muy rajo musical Top FM. fàttalikul euh, ma numéro bi Karim tey après auditeur yi mën nañu dugg ci 88 628 8181 88 628 8181 ci am question bo xam da nga poser posé Boubacar Décolle Ndiaye. Mhm. mu ngi ni ñu kaso bi yëpp ñu fa nekk li lañuy dund. tëj leen ay ati at bàyyi leen nonu te mhm. France dal li xëdden yoon du leen tax dara tooñ leen tëj leen. Mhm. du fi jeex donc ñu dem ñëwaat baye sunu gan gi 107.0 waaw euh, ñu dellu si waat rek ci antenne bi si Seyda. oui euh, ci émission bët set di wax ni d'école euh, bàyyi ko jili xam naa ne ñàkkul am na question encore mën sa question ba. waaw dama si revenir aat. Uh-huh. ndax rajo dabante la quoi. Uh-huh. maanaam yow bi ñu la jàppee xamuñ jékki-jékki rek jàpp la tuumaal la na la yow tuumaal la na la terroriste nga. say soxna ak say mbokk maanaam lan moo nekkoon seen gis-gis si mbir moom. waaw moo ci côté boobu. mun nañu micro bi d'accord. Mhm. moo ci côté boobu. mun nañu wax yow xawoon na metti quoi. Mhm. xawoon na métti parce que soo xoolee. Mhm. mooy yow bon soo xoolee yow fan lay tàmbalee sax mooy yow kii sama yaay. sama yaay moom ça veut dire que yow dama doon yëkkati chaque fin du mois benn som di ko jox di ko saa di ko ñëw ma dimbale. bi bi nga nekk Mauritanie. waaw ok léegi kooku yow non seulement yow joxutoo ko somme boobu léegi moom mooy yëkkati somme di la jox. Hmm non seulement yow léegi sombo boobu joxatoo yow yaa ngi ci biir kasso bi léegi mom moy yëkkati di daabu daabu di la jox c'est-à-dire que loolu yow soo ko xalaatee benn yow day metti si moom c'est-à-dire que moo si méttee si moom tamit yow kasso bi yow la moo tax muy métti loolu noonu kii na si bokk na ci. Mm-hmm. yow ñaareel bi tamit yow sama soxna sama aaw bi mm-hmm. yow mooy moom c'est-à-dire que yow fii lañ nekkoon comme ça à dire que nu mu la ko waxee 2006 2008 mm-hmm. moo di galéré si stage nangam nangam stage ça à dire que moom këram la nekkoon léegi ma def tout pour ñu këti këti jël dem tani indaale ko foofu. Mm-hmm. bi ma ko indaalee foofu bon yàlla def ni chaque année affaire yi di dox mi yokku ba léegi yow mu nekk à l'aise c'est-à-dire que ñu wut foofu kër. Mm-hmm. affaire yooyu mu nekk à l'aise ak xale yi. c'est-à-dire que ba nga xamante ne léegi moom sax léegi pour vacances sax pour mu ñëw sax yow Sénégal man maa koy wax ni léegi yow c'est-à-dire que yow day góorgóorlu par vacances ngay ñëw sax. Mm-hmm. même bu dee 10 jours la kii la 15 jours la. mais su ñëwee mode de vie boobu moo ngay tàmm foofu. nekk si kër gérer say doom gérer say xale soo ñëwee fii nii sama kër famille bokk benn néeg hmm. affaire yooyu xat dafay def 10 jours 15 jours delluwaat léegi kooku dafa mujj obligé waat ñibbiwaat demaat moo di vivaat lool moo di lan mooy xat boobu ak kat euh, quatre gos nga nekk ci benn néeg jafe-jafe nangam nangam problème hmm. yi affaire yooyu. boo bon booy yi tamit sama doom tamit dañ ma dañ ma takkoon miinoon ma. Hmm. léegi ñoom ñëpp ñu jël cest à couper loolu séparer loolu mooy moy brusquement quoi ça mm-hmm. veut dire que loolu loolu yow doo mun xam sax psychologiquement yow lan lay def ak yow après euleuk moy ci bop xalé moy ci bop xalé bon yow ban mo ci gëna a metti sax moy mm-hmm. yow sama sama euh, sama ki bi sama soxna bi mm-hmm. deuxième femme mom mi nga xamantene dam ko tak dam ko tak le 17 janvier 2016 pareil pour ñëw jël ko le 7 février yu mu def ay préparation bi yëpp le 5 février mo jàpp ma cinq 5 février mooy njàpp. Mm-hmm. man kooku ku ma waxoon ni ça veut dire que mooy du am problème bopp man du ma ko gëm. jàmbaar la ndeysaan jàmbaar ku ma waxoon ni mooy am problème bopp man loolu man loolu loolu si boom loolu si boom yow du ma ko gëm. Mm-hmm. ko gëm mais tamit mooy comme sànq rek yow nu ñu ko waxee rek mooy yenn mbir yi soo ko analyser xoolaat ko da ngay gis ni lii nii mooy lan la lii nii lan la mooy ndimbalu yàlla. Mm-hmm. c'est-à-dire lii nii mënul doon mënul doon mënul doon benn mënul doon benn effort nit ki quoi. dañ gis ni peut-être yow day jéem après yàlla xool ci jéem boobu muy jéem muy dimbali ko dimbali léegi Décolle dafa man euh, question boo xam bëgg naa ko bëgg naa la ko laaj. ci wàllu kaso bi. Ah, parce que du seen kaar ki yéen ah. mm-hmm. comme ni nga ko waxee wàllu terrorisme. Mm-hmm. ñi ñu ci jàppoon ñëpp dañ leen mettroon ak quarantaine teg leen à côté sonal leen ba pare di leen fitnaal ñu am ay 30 minutes euh, la ñuy am cours. Mhm. amuñu jàmm fitnaal leen. Mhm. xam nga loolu moom am na ci comme ni nga ko waxee ni ay monstre dafa mel ni état bi bëggoon créer ay li ngeen di dund nii kaso bi bari na ñoo xam ne loolu la ñuy dund d'école lan lan lan nan nga ko ko gisee noo noo gisee loolu kaso bi ñi nga xam ne ñu baree bari ñu ngi dund lii après dañu leen di bàyyi comme ni la bàyyee nii. jàpp la ba na sax bëri na pour wala ni même ñun information yi ñu ngi koy suivre fan yii passé am na deux personnes yoo xamante ne bàyyi nañ leen te pourtant kenn yëg ko. présumé terroriste présumé terroriste. yoo xamante ne bàyyi nañ leen am na deux personnes yoo xamante ne ñoom c'est-à-dire yi fan la ñu gën a bëri mooy euh, kii euh, kii camp pénal. Hmm. fan la gën a bëri saa à jàpp nañu ay étranger yu bëree bëree bëri te pourtant sénégal yu bëri moo yëguñu ko cest à léegi yow mooy nga nekk naar dugg Sénégal risque la. Hmm. nekk naar. dugg Sénégal mooy risque la fii yaw jàpp nañ fa benn euh, waa joo xamante ne saa di ko que moom kii la doon def euh, affaire or la doon liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. kooku dañ ko jàpp nangu xaalisam. Mm-hmm. tëj ko cinq ans mu dof ñu génnee tijji prison bi ne ko génnal woo ay kii mbokkam awsa wër ay awsa woo ko boole ko ak ñoom ne ko demal si yoon. leneen dafa dof. fekk dof na quoi. dof na non non non oh. fa la demee. dafa dof. subhanallah. Ah. dafa dof te loolu ñëpp xam nañ ko ñoom administration pénitentiaire ñëpp xam nañ ko moom kii yow visite bi bu yow bu ñu fa ñëwee nee naa leen saa à dire que yéen conditions yi yéen pare leen pour jël seen responsabilité am na fi du benn du ñaar ñoo xamante ne seen xel dem na te yéen xam ngeen ko te dara la te dara warula ko lu ludul mooy conditions yi mais d'école imam jànko d'école yow ban jànko. Hmm? maa ngi dégg temps yëpp ñuy wax ni imam jànko est gravement malade. dafa hmm. may problème mu rey moom aussi dañ ko moom la njëkk jàpp sax imam Alioune jànko hmm. kaam tamit doy na waar d'école. d'école yow en tant que jeune ñu jàpp la aussi ci ci la ji ñoon. yow doon nga gis imam jànko ci kaso bi. bien sûr ñoo doon nekk kañ. mais jànko est-ce que mën ñu may tuuti ci imam jànko. waaw bon imam jànko moom benn benn la boo xamante ne mooy lu ñu lay wax rek mooy yow Sénégal fii soo siiwul. Mm. war nga am xaalis tu es en danger. wallaay soo siiwul war nga am xaalis tu es en danger. Imam Dianko ñu ngi ko jàpp en 2013. 2013 moom la ñu jëkk jàpp 2013 moom la ñu jëkk jàpp. dire que 2013 dañ ko jàpp. Hmm? de kenn mënu ko juger mooy dafa am ñoo xamante ne mënuñu leen juger. lu tax cest dire que doo am loo ko wax xam nga ñun sax xam nga ñun sax bëri woon nañu 30 di nga mën a bëlëf. Hmm. poser ñi question ñi nga bëlëf mu yóbbu mu jàll. Hmm. wante koo xamante ne dossier moom kase la mënoo ko amoo dara loo wax ça veut dire que juger mais bàyyi ko bul bul ça veut que yow yow yow bul yokk sa gàcce. bàyyi ko gàcce bu gàtt gën bu gudd waaw yow bul yokk sa gàcce loolu bokk na si yow imam bokk na si Sayer Kebe. Sayer Kebe Sayer Kebe moom mooy ki bindoon rek ci juste internet bi ne. Ousseynou euh, Macky Sall dem na Charlie Hebdo benn élève hein? non bindu loolu loolu bindoon loolu man parce que man Ousseynou Diop moo bindoon loolu kon am na ko waaw waaw parce que ñoom parce que ñoom cest à que ñoom lan lañ def ñoom cest à que ñoom kii lañ doon def mooy commentaire lañ doon def ci internet bi waaw waaw commentaire ci internet comme nii rek commentaire Sayed Kebe moom da doon commentaire ci wàllu Palestine Amérique mm. ñu leen di sonalee nangam nangam nangam Palestine ok ok kii euh, Ousseynou Diop moom tam dafa ñëw di mooy commentaire attentat bi bu mu amee France yow mu commentaire ñu jël ko kii ko indi ko foofu foofu moo jotoon naa fa bind ay kii jotoon naa fa bind ay wolofal wala dama doon toog mooy di kii mu inspiré wu ma leen doon ne mooy su Ousseynou wala Sayer tuddoon Nicolas. Mhm. kon ñibbi nañu balaa ñuy jeexal seen potu chocolat. Mhm. parce que lan moo tax dafa dafa am koo xamante ni Ousseynou Diop la mu am koo xamante ne Sayer Kebe mu am koo xamante ne Nicolas lañ tudd ñoom ñu def les mêmes faits. Mhm. Nicolas trois mois la def ci kaso bi. ñu bàyyi ko mu dem dem na dem na ñibbi. Mm-hmm. Ousseynou ba léegi mu ngi foofu kenn mënu leen jugé. Saër ba léegi mu ngi foofu. mais xam nga li dafa am solo loo xam a ngi ci 107.0 Top FM. Mm-hmm. émission bi bët seet la ah euh, di wax ni. Euh, euh, parce que ñooñu noonu Saër mm-hmm. ñu loolu ñu ko. te bu ñu fàtte ni am na ay Amérique yónnee na Sénégal ay terroristes yoo xam ni Macky dafa jël responsabilité tëj leen ci kaso Sénégal yi loolu yëngu nga ko ji. waaw waaw waaw ah. moo tax na moo leen jógee ñëw ñi ngi fii nii ñu fay Sénégal Sénégal jël responsabilité jël prisonniers yooyu en tant que terroriste indi leen fii tëj leen ah. risque yooyu déjà Sénégal jël na ko pare ba pare jàpp ay doomam tëj leen ci conditions yoo ñëpp gis nañ ko loolu loolu mais Karim Ousseynou waaw mooy yokkal ni si loolu rek mooy hmm. CR Kébé hmm. moom c'est-à-dire que bac la doon def cest à dafa def ba nga xamante ni tuuti moo desoon yow mi def kii terminal gaa jàpp moom sax defoon na sax demande pour lan def candidat libre pour ci ñu bàyyi ko mu dem def wante loolu sax kiiwuñu ko nangul ñu ko. accordé wuñu ko mais mais yow euh, est ce que xamoon nga avant ñu lay jàpp imam ndaw Imaam ndaw non non yow imam ndaw mos naa ko gis benn yoon rek demoon nañu ko seeti benn yoon. avant ñu lay jàpp waaw. benn yoon ok benn yoon boobu rek. benn yoon boobu rek. d' accord mais léegi man xam nga la ma jaaxal xam nga tey euh, peut être Karim yi xam na ko ndax yàgg nañ ko yàgg nañ ko entendre. Mhm. mais tey euh, comme par exemple procès verbaux yi ni muy demee yow bu la bu la bu ñu lay enquête euh, yow bu dañ lay poser ay questions ñoom ñuy def bind ci rapport bi. mais suñu xoolee ne yow ñoo ngi lay laaj yow yaa ngi yaa ngi indi ay ay tontu. ñoom war nañu xam nag. ci biir procès verbal bi kese. que ne yow war nañ la téye wala wala waruñ la tee wala dañ la war a wax na la demal euh, ñu kon na enquête bi. wala nangam ak nangam mais tey lu mel ni terrorisme ak problème boobu ni mu doyee waar ak sama ak enquêteurs yi Sénégal ni ma gisee tamit euh, xarañteef gi nga xamante ne am nañu ko mm-hmm. nan lañ leen mën a enquêter ba pare def rapport ñu demaat ba ci digg bi daan na yow defuloo dara. Mm-hmm. bon loolu dama lay jox benn benn affaire boo xamante ne peut-être yow source bi du mu ko wax yow bi nga xamante ne yow yóbbu nañu mooy c'est-à-dire que juge bi nee na léegi dañuy juger. kenn koo xamante ne moom moom si boppam moo ko normalement juge bi moom mooy bind ni ni gis ay preuve yoo xamante ne ci suffisant di yóbbu juge leen mhm. léegi juge bi si boppam moom si ne ah kon kon ñii de yóbbu nañ yow koo xamante ne yow daf ko fekkee ah, kon ñii yóbbu nañ leen mooy yóbbu nañ leen yóbbu nañ leen yóbbu nañ jugement mhm. pourtant moom mooy yóbbu jugement normalement yow la wala wala gendarmerie non ñun ñun dig ma leen doon ñii dig ma leen doon enquête. xaw ma nag xaw ma nag xaw ma nag comprendre nga yow kii fa lay waxee. comprendre naa. mooy juge bi moom moo war a yóbbu nit ñi mooy dañ leen wala mooy juge. cest à moom yóbbu nañu juge te mu yóbbu ko. ok euh, bi nga taxawee bi wakal bi nga taxawee ci kanamu baar bi. juge bi lan la mujjee wax ak yow. bi ñu lay délibéré bi bi lan la yow lan la juge bi wax ak yow nga xam ne lii wax na ko ak yow. bon juge bi moom posé na ma ay questions. mooy ñëwaat na si question yi ma tontu ko ñëwaat na si question yi su ma jéem a développé mu kii dagg bon daanaka moo ci tënk daal kii loolu laa jàpp ko mais lu kàddu bu mujj bu mu wax yow amul benn kàddu boo xam ne jóge na ci moom jëm ci yow mu nekk loo xam ne day des sa xel. bon euh, peut-être euh, laaj nañu lenn mooy sa mooy sa mot de la fin. waaw kàddu bu mujj bi waaw waaw loolu moom kii nañ ko laaj laaj nañ ko mot de la fin ma ne ko ma ne ko man damay terminer par là où tout a commencé. parce que parce que ñun mhm. normalement ñom bind que financement la mhm. financement du terrorisme. Mhm. financement du terrorisme moy lan moy que doon di jox jaata yow Moustapha parce que ville la ville la doon liggéey. moom ko doon jox dem jël ko après dem. jox ko sama yaay c'est-à-dire que financement du terrorisme. cest à dem nañu ba xa ba nga xamante ni xam nañu ba loolu taxawul loolu ñëwaatuñ ci. mais jaatamu wanamu jaata yi mi ngi foofu ba léegi. mi ngi si kaso moom mooy euh, ki nga xamante ni moom la moom moom jàpp. Mhm. taxaw moom comme li ñu ko def nii. Mhm. loolu la ñu def Moussa Diatta ci kanamu baar bi. juge bi euh, xam yoo xamante dañu xam ñi defoon attentat ambassade bi. Mhm. te Moussa Diatta mosul génn Sénégal. Moussa Diatta pour wax la ni la. moom bi ñu ko tegee ci kanam baar bi dafa wax ba juge bi ne ko vraiment acquitté nañ la quoi léegi nag ñoom loolu ñu toppee Moussa Diatta mhm. moom la ak wax fa l'autre jour ma ne dañuy wax ni euh, faux usage de faux la ñu ko toppee parce que benn malien la boo xamante ni mi ngi fi yàgg fi ñuy sos naan malien bi xam na lii mhm. jigéen na Mali dafa ñëw fi terroriste la def terrorisme la or que c'est faux benn malien la boo xam ne dafa fi presque 13 ans am fi ñaari jabar am fi 9 doom macha allah mhm. ah euh, transfert d'argent la doon def Mm. ñu ne malien bi attentat Bassam la jóge lu ne fi hôtel ci yoon bi lañ ko jàppee comme li mu wax sànq rek ci ñoom ñu ngi ko jàppee muy génn muy génn Gambie mm-hmm. loolu yëpp c'est pas vrai malien fi lañ ko fekk ci këram jàpp ko yàgg na Sénégal faux usage de lañ ko jàppee parce que dafa yàgg Sénégal dafa Boubacar ñangadu la tudd mm-hmm. ñu dindi moom mu dem lijjanti ba ñu dindi ñangadu bi def ko Boubacar ñang loolu lañ jàppee malien bi

tubaab bu lay jàpp di tëj dafa am lu muy xool si yow même soo defee crime bi gën a grave waxuma ñi nga xam ne innocent lañ de état moo doon business seen kaw tubaab bu lay enquête bu ñu lay sa procès bu ñu koy def dañuy mm-hmm. xool mm-hmm. yow nan nga juddoo mm-hmm. sa yaay nan la mel lan nga dund lan ndax yow sa namp nga bu doy ndax sa papa dafa amoon ay problème ndax da doon dóor sa yaay ndax yow da nga yooyu yëpp dañ koy xool yooyu day ñëwaale ci procès bi day moom la ñuy wax à chaque fois fii léegi man fi ma bëggoon dellu si mooy fan la gouvernement du Sénégal teg. Hmm. jàpp ay terroristes yu jógee Guantanamo ñu fay leen xaar ñu jël tëj leen ci Sénégal ba pare loolu dèjà takkal suñu bopp ci. kër bi loolu maa ngi koy doog a yëg tey. moo am na ba pare xool xam lu gën a grave Sénégal chaque jour Macky Sall day dima dugal Sénégal ci xeexu terrorisme boo xam ni suñu yoon nekku si ndax armée française fii lay jógee fii Mali. dem fii lay jógee euh, bookam dem doon bombardé Mali fii lay décoller dem bombardé di bombardé Mali bi ñuy xeex na hmm. donc loolu xam nga loolu ñun suñu yoon nekku si mais ñu ñu si takkal suñu yoon nekku si terroriste bu jógee Guantanamo nga jël ko tëj ko fii ñu fay la xaalis nga tëj ko ah, suñu yoon nekku si président bi taxawee ne moom jullit la ba pare naan képp kuy muur burka du ñu am benn tolérance yow sax dañoo gisoon dañoo demoon ba gis ñun suñu politique yi hmm. dañoo amoon problème ñoom xeex bi nga xam tubaab bi déclenché ko suñu jullit yi ci àdduna bi hmm. ñun suñu suñu système dañu bëggoon bokk ci xeex boobu noonu par force nag hmm. dañuy gis ni lépp loo xam ne mooy alxuraan bi muy daara alxuraan yi mm-hmm. muy képp ko ba tey gisoo du sëriñ du imam du kenn ko am sañ-sañu taxaw def xutba bi leeral askanu Sénégal ne leen islam du terrorisme que ñii tey décole mii li ko dal mm-hmm. bëri na ñu nekk ci kaso bi loolu moo leen dal kaso bi nag mm-hmm. kaso bi moom lañ fay def moom moo gis nga ñun sénégalais bu nekk fii am nga ci part de responsabilité parce que ñoom bu ñu jàppee ñii dañuy wax ni ñoom dañ ko jàpp pour sécurité Sénégal loolu la ñuy wax pour sama man sécurité Aliou Guèye sécurité Djiri moo tax mm. ñoom ñuy jàpp xam nga ne ñun ñoom ñi ngi tooñ ay doomu aadama di leen toroxal di leen bëgg a rayte kasu bi pour ñun te ñun la ñuy liggéeyal lañ wax te ñun am nañ ci part de responsabilité moo tax dañu ko war di gëstu di ko lijjanti di ko xam parce bu ñu dee. jàkkaarloo suñu borom dañ ko wax suñu borom loolu dafa wér te euh, jox foofu benn preuve rek. Mhm. peut ay kii kii information. Mhm. yoo xamante nit ñu bëri yow duñ ko yëg. Mhm. pour jox benn preuve si différence Europe ak Afrique. foofu bu fay dugg il avait il avait à peine mooy 18 ans. diawlo tudd. Mhm. boy bobu yo France la nekk. bañ mhm. ko doon suivre diko xol diko xol diko suivre diko suivre diko suivre bu mu nee cëpp fii nii aéroport Sénégal dañ ko jàpp dugg ci kaso bi. Mhm. lu tax. Mm. bu mu nee cëpp Sénégal. ñoom ça à xam nga France ça à que ñoom gëm nañu dara ça à dire gëm nañu ñoom balaa ñu jàpp nit yow day am moo ci moo ci loo xamante ne yow lañ koy teg waaye ñun fii soxlawuñu preuve soupçon non est-ce que yow la est-ce que est-ce que léegi ñu jàppale dugg ci kaso bi ne léegi yow dañuy enquête. Mhm. te pourtant France ñemoo ko jàpp. France ñemoo ko jàpp mais fii moom mooy se mooy se bu mu nee cëpp aéroport tey kooku la la moo ci gën a garaaw waxuma le juger de ça veut dire que kenn entendu ko pendant deux ans. kenn mhm. déglu ko. luñ koy toppee kooku terrorisme léegi euh, comme ni nga mais lan nga nga euh, euh, justice maanaam comme justice ci Sénégal ak kaso bi tamit par exemple yow lan nga fa jàngi ci ci trois ans yi nga xam jot nga ko fa def. waaw def fa à peine kii deux ans et demi. deux ans et demi waaw def à peine deux ans et demi. bon justice justice Sénégal. Mm-hmm. ça dire que sincèrement justice sincèrement. je fi ma parce que je wax ça que yow lay pendant deux ans et demi. né la defo dara demal ça veut dire que yow nga content. pourtant yow sont xolé la da ngay au fond yow su la normalement da nga parce que nañ nañ sa famille. nañ ça veut dire que tu bi dafa degré de même togn bi suñ ko sax yow nga yow pour wane ne daa di yow degré tooñ. c'est-à-dire dañ lay tooñ benn tooñu degré boo xamante ne tooñ suñ ko tegee yow nga kontaan. nga kontaan ok waaye pour wane ne ni ça veut dire que man moom justice moom gisuma ko. ok mais li nga dund ci biir ak maanaam boobaak léegi lan nga ci jàngee. waaw bon foofu moom foofu moom yow jàngal nañ fa jàngale jàngal nañ fa jàngal nañ fa ay mbir yu bëri quoi dafa am dafa am sax dafa am yow benn proverbe même proverbe en arabe yow buy wax ni as-sijnu maarifatul aada wal ahibba wal asdiqa. c'est-à-dire que yow prison. Ding nga fa xamee say xarit Ding nga fa xamee say soppe Ding nga fa xamee say non. Mm. ça veut dire que yow dafay am benn voile boo xamante ne peut-être yow moo nekkoon par rapport ak ñeneen ñi peut-être kenn yow di nga ko jàppee woon xarit fekk kooku yow romb na xarit mooy soppe la loolu lan moo koy war prison moo la koy war. te kaso bi nag may fàttali ni métti na métti boo xamante ne nii. Mm-hmm. Euh, prison ba génn te feebaroo. choléra woo tuberculose yooyu di daru la. Mm-hmm. xamal ni ndimbalu yàlla kese la. Mm-hmm. xamal ni xool loolu. xamal ni loolu. ndimbalu laalal sa micro bi ci ginnaaw waaw. dama expliqué ma ne. très bien. ma ne kaso bi ne kaso bi. Mhm. dugg ci kaso bi ba génn. Mhm. choléra woo. Ah, mhm. feebar yu bëri daru la ay hémorroïdes yooyu yëpp daru la. salte bi nekk ci kaso bi ak manque ñàkk toppatoo bi. ay nit yu ah. bari ba ay deux trois cent cinquante personne ci benn salle bu ndaw. odeur yi toilettes yi loolu boo fa duggee ba génn te feebar bu topp la rayu la. ah loolu mm. ndimbalu yàlla la ndax benn toppatoo boo xam ni mm. dafa nañ ko ci toppatoo kaso xam nga kaso li mm. nga jaare baax ci kaso bi wala nga jaare yaaxu mais gis nga réinsertion dafa baax mm-hmm. cest à pour man war nañu mën a fexe ba kaso bi bu ñu fa tëjee ay nit mm-hmm. ñu fexe ba ñoom ñu war a mën a nekk ci condition yoo xam ne lu mu gàtt gàtt bu ñu génnee sax mm-hmm. ñu bañ parce que kaso aussi pour defar la mais nga war a jaare boo génnee foofu nga nekk ku waa Karim laalal sa micro ci ginnaaw. ma am question moo la posé micro bi da lay jaay prek euh, Karim. est-ce que comprendre nga c'est-à-dire kaso Sénégal yi. Mhm. dafa nekk loo xamante ni. Mhm. daf day yàq au fait. Mhm. day mujjee sax yàq nit. mais dañuy gis nit koo xamante ni suma waaju xoolal. mais deful dara ñu tëj ko ci kaso bi fàtte ko. même ki def sax amul waruñu ko def loolu dañu ko war a àtte. yamatuñ ci àtte. ñu fàtte ne parce que bu la yoon jàppee. bu ñu la jiñee dara. gendarmerie procureur moo koy jël jébal ko juridiction mm-hmm. procureur nag moo lay def mandat de mm-hmm. procureur bi sa procès verbal lay ay nit ñi ci ay 17 ans ay 15 ans ay 10 ans xoolal atte leen loolu àq la loolu àq mhm. la daka su Sénégal yi te étranger yi nag mhm. ay nit yow nga doomu jaamul nga jëlee ko ci àll ba jàpp ko tëj ko di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di jël sa alal di ko jox mu tëdd te mun nga ko delloo dëkkam waaw c'est yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam lu ñu war a wax la man keroog bu ma nekkee kaso Sidi Kaba bu muy ñëw def visite fa la ma fekk mm. nga gis ñu peinturaat kaso bi defar moom di defar di peinture laso kaso bi wekk yenn jiini ñu weroon ci parenteer yi hmm. defaraat di jekk-jekkal c'est-à-dire yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam dafa doy waar di def ay demi mesure ok ñu jël kii 88 628 881 88 628 881 allo allo bonjour allo allo oui sëñ bi ñu ngi ziar ñu ngi lay dégg ça ça va. Euh, dama bëggoon dugg ci dama bëggoon émission Karim. ayca ba ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. allo Karim. waa jàmbaar ñu ngi lay dégg. waaye naa yaa ngi cool. sant bu wér wér jàmbaar. mais man damay laaj lan mooy terroriste laay laaj lan mooy terroriste bu pare. moo jaaxal ñëpp sëñ bi. ah. ma ne moo jaaxal ñëpp moo jaaxal ñëpp. ah mais damaa xam ne kat gars bu nekkee terroriste mooy ñi rey sax ñu ko jëfee gouvernement Sénégal ñu rey nit ñi. Hmm. yaa ngi nii gars ñoom ñu am problème ñu war a defar seen machine defaruñ dara. Hmm. ah. waaw. mais loolu loolu ay problème la yoo xam ne dañ ko war a lijjanti ba ba pare ñoom ñu jàpp ñoo xam ne defuñ dara. Mhm. dafa am yoo xam ne naajatul aussi tamit. dëgg la. yàq loolu loolu aussi yàq deru Sénégal la sax taxaw naan ay sénégalais am na ay touristes yàq deru Sénégal mënu mënu mënut weesu loolu. walaay ndeysaan. loolu yàq deru Sénégal mënu mënul weesu loolu. Mhm. Mhm. waaye nag mais na nga xam ne carrément képp ku ànd ak yàlla moom nga xam ne carrément tag bi moo nekk kanam. walaay mënuñ ci dara. état bi ñoom fu mu toll nii. ku nekk na def la la neex rek dañu xam ne carrément ëllëg ku nekk dana taxaw ci kanam yàlla. Mhm. Ah. Mhm. wóor na. waaw waaw mais dara dama doon jógee rek rafet na. jaajëf bro jàmbaar jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax. dèjà mooy li ma wax sànq xam nga jili man fi may ñëw mooy jili mhm. terrorisme comme li booy bi di wax nii très important lan mooy terroriste. kii dañ ko jàpp tëj ko ñaata at ñetti at presque léegi moom ah, ñoom ñu ne ko defoo dara yàqal ko liggéeyam taxale ko ay doomam yu ndaw yàq liggéeyam yàq mënu na si jaare dof mën na si jële feebar mu décédé ndax gis nañ fi koo xam dañ ko jàpp ci kaso bi jiñ ko ni moo sàcc xar ndekete sàcc ko ñu dóor ko bal ci mutinerie bi mu dee ci kaso bi la dee après la xam ndekete moom lañ ko jiñoon def ko parce que man fi may waxee mooy léegi Fallou Sène kan moo ko rey ah gendarmerie lañ tuuma. waaw léegi loolu la gendarmerie kan moo commandité ordre bi loolu terrorisme la wala lan la. Hmm. kii kan la rey. Saër Kébé bi ñu tëj ay at ci kaso bi kan lan la def Ousseynou Diop bi ñu tëj lan la def Moustapha Diatta bi lan la def loo xam ne lu ñu ne lii la léegi waxuma ñooñu ñëpp de léegi dama ni ki nga xam moom la ñu bëgg a sëf terrorisme bi yëpp muy euh, joxaane mm-hmm. lan la def loo xam ni moo gën a garaaw deewu faalu seen tey ñi dee hôpital yëpp ñu tëj leen foofu teg leen fa mm-hmm. ñu dee ñuy dee parce que dañu am problème machine chimio wala ay ay ay euh, radiothérapie ak yooyu yooyu ñu bëgg def yooyu c'est-à-dire euh, nu mu tudd yooyu ñooñu mm-hmm. ah kan moo leen rey kan moo leen rey cest man foofu la ma ne yi ñoom dañ au fait ñoom baatu terrorisme bi ñuy wax mais ñoom ñooñu terroriser boo jàppee ni tëj ko 10 ans ñet fukki fukki atu kaso après ñu atté ko gis ni nek te lam def ñaari at la ci wara teud yo fekk ya ko waroon atté bu yag leeraloo nga bàyyi ko bu teud 10 ans nga bàyyi ko ne ko no bàyyi nañ la mu perte 7 ans koku bu dofé koku ko ku ko dofloo. wallaay léegi bu ñu dellu suwaatee ci jafe-jafe ndox. Mm-hmm. jafe-jafe courant. Mm-hmm. fitna dëkk bi saagantey. Mm-hmm. reyantey xeex yi policiers politiciens yi di xex fitna bi ñu teg ci dëkk bi alalu réew mi ñi fowé légui kan mo terroriser Sénégal kan nañu waxante dëgg rek léegi kon ki nga xam ni defu dara ñu jàpp ko mu nekk doomu Sénégal parce que juste jullit la am na sikkim parce que dafa def ni moom ëxlu sunna la bëgg dafa bëgg dund ni ko mm-hmm. réew jàpp doomi jàmbur yu ñu jàppoon ca Guantanamo ñu jox la ko fay la xaalis ko def ko ci say kaso indi ko ci mim réew léegi ñooñu dafa am fu ñuy bokk xam nga ñooñu ci selu yi ñu bokk noonu ñooñu dañuy mere Sénégal léegi fitna boobu noonu kan moo gën a nekk terroriste ñooñu léegi ñooñu ah. ak Macky Sall kan moo gën a nekk terroriste dañuy waxtaan rek nga taxaw. carrément ne da ngay noom non mais attends. Mhm. tey Sidiki Kaba. Mhm. wàllu ngóor jigéen Sénégal rek Sidiki Kaba dafa taxaw ni Sénégal dañoo tardé ndax war nañoo dépassé di xeex góoru góor am nañoo droit sëy Sénégal dañoo tardé démocratique démocratiquement réew mu mel ni Sénégal nga fi wax loolu réew Serigne Touba yow yow yow yow terrorisé wu ñu yow. Hmm. nga dem de mur de lament mur de lamentation bi ca juif yi di julli fitna boobu yow tooñoo ñu c'est-à-dire loolu laa mën a teg léegi ñii ñu jàpp tooñ leen tëj leen ba pare tooñ ñar bi leen fekk ay doomu jàmbur yow ay alal burul jeex ngay sàcc dama ci kaso bi fekk ay nit yoo xam ne ay genn waa libre yamba lañ ay kilo yamba ay nit yoo xamante ni xoolal ay affaires yu ñàkk faj la lañ ay am ko benn benn waay euh, Ndour. fii lañ ko jàppee gis soble bii nii. si kii soble bi benn waay ko jël carapide la yoroon. gaare ah ñu ah. jël kii ma ñëw ma ñëw si. 88 628 bonjour. allo Ida ça va. ça va bi. Babacar Dramé ak si la ak ñu ngi dellu ziar. di nuyu ñu ngi bokk plateau di nuyu seen gan. merci beaucoup. Euh, ma di nuyu seen gan bu baax. Uh-huh, décol mi ngi lay dégg Babacar. Ah, ah, affaire yi moom yéeme na trop ndax mënoo mënoo téye nit ñetti at xëy rek libéré ko na ko defoo dara Sénégal. doy na waar. moom euh, dafa mel ni dem na. Ah, dafa dem. waaw euh, bu waat. léegi Ndour 88 628 81 81 waaw. Mhm. waaw euh, képp bëgg a ci émission bi def 88. 628. 81 81 81 81. fàttali yéen a ci 107.0 émission bi bët set la altine lay am ba aljuma 7h ba 10h chaque jeudi dañuy dalal gan tey ñu dalal Boubacar Décolle Ndiaye bi ñu jàpp tëj ko ñetti at di ko terroriste xëy ko. ñu mhm. ko ñibbil dara. dama ñëw ma Ndour. waaw benn ji ci bi. Mhm. fii lañ ko jàppe usine soble bi nekk cootu kii bi di cootu rajo bi jii xam nga fii ñu defar soble xamal benn waaye ko jël fay ko ne ah. pour mu ñëw yàpp soble yi ñu ñëw mu yàpp soble yi di dem ñu arrêté leen jàpp leen waa ji daw moom ñu téye ko ba léegi mu njëkkaas moom xamul lu xew ah. pour moom waa ji ci usine bi lay liggéey moom dañ ko jàppale moom waa da ko da ko waxaale ak moom chauffeur car rapide kott la ka sàccoon soble yi dem na yoonam oh. moom ba léegi waa jooju def na cinq ans ci kaso ko sifuru car rapide kottu la. comme comme ci yu euh, comme ni nga ko waxee ah bëri na xam si dañuy dugg ci kaso bi te duñu xam lan moo leen ci dugal erreur mun na am ci benn côté mais tamit euh, tey euh, en tant que yow De yow mi ngi xam si xëy nañ ñi ngi la doon jing lu mel noonu te gisuñu ko ci yow. Euh, tay bu fekkoon da ngay ñëwaat euh, ci euh, ni nga ni nga ni nga jàngatee wàllu terrorisme maanaam ak fi ñu koy yóbbu ci Sénégal te ñu bëree bëri ñu ngi leen koy tuumaal gis nañ fi ka Imam Ndaw ak ñeneen ak ñeneen te gisuñu ko tey lan ngay lan ngay wax ci loolu. Mhm, waaw bon loolu li ñu ci wax mooy comme lu waa ji posé question rek baax na. ma fàttaliwaat ah que képp ku bëgg a passé ci émission bi da ngay def 88 628 8181 88 628 8181 88 628 8181 tey ñu ngi bu Boubacar Décolle Ndiaye comme le wadi wax rek soy wax ci définition bi dañ koy xam. moy hmm. lan moy terrorisme terrorisme celui qui sème la terreur. moy yow ko hmm. hmm. avocat. da ko waxone mi déployer 200 personnes armées cagoulées. koñ bi. pour jël ben femme bo pesé wul 50 su leen femme ça à dire que dañuy ñëw ci këram woo ko jàpp ko kenn du yëg ñu dugal. dem enquête leen ko mhm. Moustapha Diatta bu ñuy jàpp baobab lañ tëj suñ kooku suñ ko woon eh police moo la soxla moom mu taal scooter dem police. waaw c'est-à-dire que ñoom dañoo amoon bitu terreur mooy c'est-à-dire que terroriser nit ñi. c'est-à-dire que loolu mooy loolu si boppam yow dafa leer ñoom suñ but moo doon tiital nit ñi ba nga xamante ni ñii suñ leen jàppee kenn du si am sañ a wax te pourtant loolu moo am c'est-à-dire que yow jamono boobu pour nga wax si c'est-à-dire que foog nga am fit dëggantaan. parce que dañoo terroriser nit ñi jouer film garaawul affaire yi sol ay kagul yor ay armes de guerre pour jëli benn personne imam imam ndaw buñ koy jëli 200 personnes ñu filmer ko ñu filmer ko woné ko ci télé bi te pourtant buñ koy euh, buñ koy bàyyi ben organe de presse nekk fa buñ koy japp dañ ko filmer woné ko ci télé yi nangam nangam gars ñëpp gis ko pourtant pour lan buñ koy bàyyi ñom ñëwaatuñ ça dit que seen but moy lenn la dañu bëggoon yow tital nit ñi ba nga xamante ne cest à que kenn du si wax. léegi nag ñoom dañoo xamul mbiru yàlla c'est-à-dire que mooy mooy lu ñuy wax wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin ñoom c'est-à-dire que ñoom si boppam ñoom ñu ngi teg seen pexe wante yàlla mi ngi teg ay pexe te yàlla si boppam moo leen dàkk pexe yàlla moo leen sàkk bindi leen léegi yàlla ñëw ak ñoom yow foo xamante ne ñoom mënuñu koon xalaat c'est-à-dire que ñoom dañu doon nit ñi parce que ñu ngi doon ñu ngi doon séntu c'est-à-dire que imaam yi dañ jóg wax nangam dañ jóg wax ñu théoriser tiital leen yàlla def ay rappeur taxaw di wax loolu ñoom solaaluñu ko c'est-à-dire que mooy donné boobu soraal ñu ko woon cest à foofu yàlla si boobu moo li woon mu Firawna bu ko yàlla di bu ko yàlla di bu ko yàlla di mooy daaneel c'est-à-dire que Moussa moom mi ngi doon wër ci kër moo di rey lan mooy di rey xale yu góor yi yàlla def mooy yow xale bu góor bi juddu mooy ci biir këram mënu ko woon xalaat sa à sa que c'est-à-dire que ñoom c'est-à-dire que seen biir moo la la ñu tiital nit ñi ba xamante ne kenn dootu si wax te ça yow loolu moo amoon jamono boobu c'est-à-dire que benn nitu diina wala néewoon na yow ñoo xamante amoon nañu fit mooy wax si mooy ña ñoo si wax mooy ñoom Karim waaye waa nitu dëgg ñoom ñoo ñëw saa à dire def loo xamante ne saa à dire que yow nitu diine yi ñoo ko waroon def moom laa waxoon kii boobu mooy aaya boobu mm-hmm. mooy yow Aïcha mm-hmm. dañ ko tuumaaloon njaaloo mm-hmm. dañ ko tuumaal njaaloo rumeur bi ñëpp di kii ñenn naan moom la du moom moom la du moom yàlla bàyyi mbir yi yàlla mënoon na ñëw leeral mbir yi le champ wante yàlla mooy teg mbir yi lan bàyyi mbir yi pour lan leeral pour pour daal di lan pour daal di pour daal di leeral ay mbir. yàlla bàyyi mbir ku nekk nag ku nekk ku nekk nag yow jël position. ñi naan du moom ñi naan moom la ñi naan est-ce que moom la. yàlla bàyyi na ba ñu pare. yàlla ne leen lawlaa is samitumuuhu zanna al muminuuna wal muminaati bi anfusihim xayra. wa qaalu haada buhtaanun adim. min ak a neexoon information bi bu leen ko déggee ngeen njottal seen bopp waxu sax ngeen njottal Aïcha. saa à dire que Aïcha mooy yéen ngeen njottal seen bopp mooy lu baax ngeen wax ni lii nii ça veut dire ay lii nii mooy c'est foo ngeen wax ni lii nii mooy c'est foo cest à pour wan ni loolu mooy lan loolu mooy loolu mooy lan loolu moo war nekk taxawaayu jullit jullit mooy sa mbokku jullit su ko ñëwee tuumale indiwuñu benn preuve yow xoolee ko xoolee ko xoolee ko kan moo sa bopp neen est-ce que man lii nii man bu doon man dam koy def bu dee yow da nga ne non non neel moom non defu ko wala ñu preuve mais c' simple mais tourisme, lan moo gën a terrorisme moom laa na wax sànq. fan ngeen gis monde bi ñu plus de quarante personnes jël leen procureur mënul waxuma génn wax de mënul génn wax. te yeneen hmm. dossiers yëpp waaw lii lañ gis moom moo def lii nangam nangam moom moo def lii moom moo def lii ak lii ak lii. Hmm. lan moo gën a hmm. deux ans et demi wax mënul parce que ñemewul si taxaw sénégalais yi non dañ ko parce que waa dafa xam ki mohamed Ndiaye waa da doon liggéey da koy yëgal ni saa yow day takk soxna moo ñu jàpp ko wax ko wax c'est-à-dire que léegi moom foog mu bàyyi noonu après ñu man moom laa la wax Karim mooy yow bële passé bu ñu def mooy hmm. woon gëm procès dina am woon gëm ni que état bi dina osé def procès moo man dama gëm procès bi yow que parce que hmm. procès bi honte non honte la ah, gisoo gisoo gisoo gisoo gisoo mais li honte la pour le Sénégal gàcce la gàcce bu rëy la euh, léegi yow lan moo nekk euh, sa xeex fi mu ne nii ba lan moo war a nekk sa taxawaay ndax yow dund nga kaso euh, tëj nañ la ci loo xamante ne du yoon am na ñu bari ñoo xam ne gis nga leen tëj na leen si loo xamante ne du yoon est-ce que yow tey pare nga pour benn combat. non man moom sama combat yow mosul changé mooy lan taxawal mooy yow dëgg fépp foo xamante ne yow gis nga fa dëgg c'est-à-dire que yow nga daal di koy mooy taxaw pour défendre dëgg.

9 h 40 minutes hein waaw euh, na 20 minutes ak yéen ci téléphone yi ndax sen heure téléphone mom la euh, Aliou Gueye poser question. Mhm. euh Décolle di wax euh ta d'habitude daawuñu def lolu euh heure téléphone bi la yéen ko mom 88 le 628 881 question bu ngeen amé pour poser. euh ngeen poser ko Décolle Ndiaye man mii amna naa question. wa waaw euh ndax euh, monsieur monsieur Ndiaye. Mhm. yéen ñi ñu jàppandoo woon mooy yow ak yenen 6 personnes xaw ma personnes mhm. ndax taxaw ngeen ben courriel bo xamantene da ngeen di top état ngeen out ku len ci jàppale parce que tamit euh, ñu tegal leen tuuma boo xamante ne Karim defuñu ko ñu dem ba joxal leen ni euh, preuve ne leen defoo leen ko mun nañ leen libérer est-ce que tamit topp ngeen leen pour ñu jox leen ndàmpaay wala euh, pour ñoo xamante ne ñoom dinañ ci jëlee leçon boo xamante ne du ñu jóg rek tuumal ni te duñ ci am preuve yu leer ndax kuréel boobu taxaw na entre yéen ñoo ñu jàppandoo woon. ok ndax kuréel boobu kii na taxaw na demee ni déedéet. kuréel boobu mm. wante loolu dañ ko bàyyi woon lekk si rooru kii avocat yi. Mm. avocat yi ñoom seen kii la daw jotoon nañ gis sax kii jotoon nañ gis euh, euh, kii euh, damay fàtte tur bi quoi kii ki benn avocat bu siiw la. Mm-hmm. mi doon wax ne waaw bon loi bi voté nañ ko affaire yi war na génn dossier yi ci génnee après dañ leen woo affaire yooyu. Mm-hmm. mais man moom personnellement damay wax ni mooy instant yi nii. Mm-hmm. man ci côté boobu dama gis mooy combat bi mooy lan ça veut dire que yow. su su su ma jógee pour def mooy combat. Mhm. nañ def combat pour ñi nga xamante ne ñi ngi foofu kenn jugé wu leen. Hmm. ñi nga xamante ne ñi ngi foofu. Mhm. kenn jugé wu leen. Mhm. c'est-à-dire que mooy suñ leen c'est-à-dire que suñ leen mënul bàyyi nañ leen jugé. boo fekkee mënul bàyyi nañ leen jugé parce que c'est-à-dire dafa garaaw quoi dafa garaaw nga téye nit ki. mooy moom muy toog di xalaat à l'infini. ñu toog nii rek. di xalaat wala say parents gaañu sa ginnaaw mais ku def sax loolu dafa métti si moom waxtuma laa ko deful. toog di xalaat à l'infini yow xamoo ndax 2025 lañ lay jugé wala di xool toog noonu. loolu dafa bëri si kaso moom laa la expliqué sànq. waaw la mhm. nga fi mhm. Mhm. Ah, la war a fusiller wala la war a rey gars yi di wax may demee dañu la war a rey parce que ay ce sont des yoo xamante ni mhm. am nañ lu nekk ci àdduna mhm. am lu nekk te am nañ ko ci politique Sénégal lañ ko amee mhm. ba pare te xoola ñi ñaa ngi dee ndax ay xiif ñi ñaa ngi sonn ndax ay ndox yi ñi naan di ci dee hôpital ñi ñaa ngi faatu ñi ngi sàcc àllu réew di ko sàcc ba pare kenn tëju leen kaso kenn defu leen dara ñu jàpp doomu jàmbur yi ay daggitu yu ñàkk fay dañ leen jàppee ay affaires yu sew jàpp leen tëj leen ñu libéré leen ay affaire doy waar ñu bàyyi leen ñu nekk ci dëkk bi taxawaalu ñu jàpp ay jullit tooñ leen tëj leen ci kaso bi ay doomu jaamu nekk ci kaso bi mm. te amul lenn leen yoon mënoon toppee du leen sax jugé imam jànko dafa feebar a feebar ba dañ ko yëkkati di ko teg hmm. billaahi wallaahi problème rey la am garde hmm. pénitentiaire ñoo ko yëkkati di yóbbu ci toilette di yóbbu tout temps ngi jàppante hôpital te xoolal ba léegi mënuñu ko atte parce que te loolu dafa doy waar te àq yooyu ji nga man dama am nga ci àq man am naa ci àq. Mhm. parce que ñoom dañuy wax ne ñun la ñuy utal sécurité. Mhm. Sénégalais bi kon je pense que jot na Sénégalais yi conscient loolu quoi. loolu la. Euh, Aliou Soumaré bi nee na ndax di nga amaat fitu dellu Mauritanie. waaw non fit moom kii ne am bon loolu yéenoon nañ ko sax bon loolu yéenoon nañ ko peut-être parents yi famille bi léegi seen xel moo dalagul quoi. Ah. même sax directeur bu ñu doon liggéeyal sax woon nañ ko vacances yi mi may laaj kan ngay ñëw affaire yooyu. ma mhm. ne ko bon maa ngi xool ma xam naa maa ngi ñëw après bu ma paree pour décider peut-être euh, famille bi la seen xel kiiwagul dalagul. Mhm. moo tax ñu ne baa ñu toog fu gum fi quelque temps wutagum xoolagum quoi. d'accord euh, foofu foofu sax Mauritanie sax yow bu ñuy bu ñuy bàyyi foofu six jours yi. Mhm. ñoom si boppam dañ ne cest dire que yéen defoo leen fi dara waa police waa Sénégal ñoo leen soxla pour laaj leen. Hmm, ñu ne saa lañu buggee ñëwaatee ñëwaat leen. c'est-à-dire que loolu moo ci loolu moo ci garaaw mooy entre état ak état. Hmm. c'est-à-dire que léegi léegi yow état moo ci fekkee état état bi Sénégal. Hmm. mi ngi def ay injustice yoo xamante ne beneen réew. day xam ni kii di day def ci boppam ay injustice c'est-à-dire que fulla ci boppam yi dootu ko am. personnalité da koy yàq crédibilité dootu dootu ko am. te soo xoolee yow la preuve. jooytu nañ ko ba sonn euh, mooy G5 G5 Sahel. waaw Sénégal bëggoon na ci bokk ba sonn. Mhm. bëggoon na ci bokk ba sonn wante boolewuñu ko si. Mhm. c'est-à-dire mooy état am na yenn mbir yoo xamante soo ko defee ci kanamu àdduna bi yëpp. Mhm. doo soo amati personnalité. dootoo amati mooy personnalité quoi. d'accord euh, mais foofu moom foofu moom amuñu fa amuñu fa benn problème suñu bëggoon tey tey tey ñu. ngeen delluwaat waaw ñu delluwaat defe naa leer na ci Aliou Soumaré boobu donc euh, nii lay demee saa su nekk ah, bët set votre émission 100 pour 100 matinale tey ñu dalal euh, monsieur Ndiaye Décolle donc le numéro c'est toujours 88 628 81 81 88 628 81 81 mais monsieur Décolle daa am lu ma lu ma jaaxal sa xel musul dem après buñ la buñ la buñ la tëjee noonu ni dañ leen war a mën ay nit seen xel dafa ñaaw ci côté parce que tay yéen seen a seen façon mhm. solide. ak nu di euh, ah. mhm. euh, France vidéo par par YouTube prank lañ ko tuddee maanaam dañuy solu comme nii nu mu soloo jàllaabe bi mhm. dugg ci ci population da gis tubaab bi commencé parce que ñom dañ lay préjuger automatiquement buñ la gissé ni nga solo ni automatiquement terroriste est-ce que tamit stigmatisé. Ouais, dañ les stigmatiser très bien voilà lu xam nga euh, ñoom c'est-à-dire islam moy problème mu àdduna bi actuellement. Mm. réew bu nek da nga bëgg tak ci xeex bobu pour am xaliss ah, Sénégal non pour am xaliss parce que Sénégal dafa bok ci. Mm. Euh, organisation Nations Unies yeeg yooyu dafa ay budget yo xam Union européenne dañu koy génnee lutte contre terrorisme. 140 milliards après 80 milliards Abdoulaye Daouda Diallo bi nek ministre de l'intérieur mo wax ni. Mhm. Sénégal jot na 80 milliards ci lutte contre terrorisme. léegi nag xaalis yi encaissé yow. foko mhm. def rapport. tubaab dula jox xaalis rek neena na lekkal de. déedéet du ko jox si di nga son lool balaa nga koo diix. Mhm. nga def rapport léegi nak malheureusement bu expliquer kaw Imam Ndaw ci nga xamni ndekete problème moy ñom au fait ils avaient pas amuñu amuñu luñu luñu takal ni mais imam imam jànko par exemple amuñu liñ ko takal mais joxane sax joxane gars am ba amuñu liñ ko takal fi technologie bi tollu fi bi tollu ni mm. ak fi technologie tollu nga japp ni diñ ko terroriste lu melni ni nit sor doom aadama nek ci sa loxo nga japp ko tejj ko tegoo ko fenn fudul dama ko njort dama yaakaar ni ya wo ki wala ya setike amu ben preuve bu tubaab du def lolu mm-hmm. attentat bi nga xam mo amone France Bassam mm. ah mm-hmm. attentat euh, euh, Côte d'Ivoire pas Côte d'Ivoire bi amone France euh, attentat bi amone France ci match bi rek mm-hmm. stade bi stade bi. Mhm. Ah, ah, mais attentat boobu. Mhm. mais bi mu amee. Mhm. booy booy bi nga xam moo defoon attentat bi. fa fa jaaroon ci benn kër xaritam fa la fanaan. mais xarit bi dañ ko jàppoon après. bi ñu xarit mais après yoon dafa bàyyi booy bi mais bu doon Sénégal la. bu doon Sénégal la kon kon booy kon ko bàyyi mukk. loolu la wax parce que dañuy naan sa kër la fanaan. ñu jël euh, auditeur bi 88 628 81. allo ma ne allo waaw. Ah, allo Babacar waaw. waaw kër de moo bëri ma ne mm. kii nguuru Sénégal tooñ na ko trop ndax mënoo téye nit ñetti at xëy rek libéré ko mm. euh, te te loolu dafa métti li mu def ci prison ñetti at ñett mm-hmm. te Karim ñu teg soog noonu ñii li ñuy def moo gën a te moom jàpp ci benn preuve Sénégal si am ko Macky Sall moom ñu mu jëlee ñu mu jëlee Amérique indi leen fii ñëpp yëg nañu ko loolu yàgg na trop mm. euh, affaire métti na trop nag ñu ngi koy ñu ñu ko jaajeful bu baax wax dëgg yàlla ndax gëm na yàlla te ñu bayoon ci ginnaaw tamit ay jàmbaar lañ mhm. Sénégal man gëmu mën am na terroriste maa ngi koy laaj est ce que moom gëm na ne fii am na terroriste ak ñi dem ci kuréel est ce que gëm na ne def nañ dara loolu laa bëgg laaj loolu ko koy laaj moment d'école waaw ba boobu kat dégoon Ndiaye keroog magam naa ko seetaan yaa yaa ci wal fa jëre Tayru Ndiaye metti mhm. na trop man de fu metti yam foofu la ma dalee yàlla xam na ko def naa ci lu ne parce que daan naa ñëw waaye nga xam ne ay ay caaxaan ay nu loo day sikki mag noo gisee lii loolu dañ ci at nit fii am nga nit am na droit gëm lu ko neex. Mm-hmm. dëgg la euh, ñu koy jaajëfal. ñu koy jaajëfal jaajëfal bu baax a baax mom Babacar Dramé donc euh, mën nañ jël ñaar euh, appel pour l'instant. le euh, bala heure bi di ñu gën xoj donc bala 10 h mën ngeen ñu wo 88 628 81 81 88 628 81 81. dégg nga loo loo loo question bi. waaw nga gisee ñeneen ñi nga xam ne ñu téye ci kaso bi ñu mel parce que Mohamed Ndiaye. Mm-hmm. moom tamit dañ ko téye ak ñoom ñoom joxane ñoom ñëpp nga xam ne ñu téye ci kaso bi. Mm-hmm. bon dafa laajte ndax fii dañu gëm ni. terrorisme Sénégal am na terrorisme. Hmm. man dama gëm ne Sénégal am na terrorisme. Hmm. c'est-à-dire que léegi ñan ñooy terrorisme. Hmm. terrorisme mooy koo xamante ne da ngay fekk yow nit ki muy liggéey. c'est-à-dire que mooy di yore njaboot jéem fondé mooy société bi nga dagg lool. c'est-à-dire que ñun yow dañ fi nekk Sénégal joxuñu liggéey. ñu dem sibiti sibiti dëkku jàmbur jox ñu liggéey ñu nekk foofu di liggéey. dëkku jàmbur boobu yàqaloon suñu liggéey léegi Sénégal mi nga xamante moo ñu joxul liggéey moom moo ñëw yàq suñu liggéey indiwaat ñu fi. téye ñu fi. torturer ñu mooy loolu laa foofu torture psychologique moo fa torture physique amu fa. wante dañ la doon torturer mooy psychologiquement la preuve wax naa leen ko. du benn du ñaar ñoo xamante ne seen xel mooy kii na foofu dem na foofu. am na fa ñoo xamante ne seen xel wa jot na fa dem. léegi nag ça veut dire que téye la foofu torture la psychologiquement. Mhm. pendant des années après na la demal sa yoon. ça veut dire que bu dee loolu bu dee loolu noonu bu dee loolu nekkul terrorisme donc man dama xamul ça veut dire que terrorisme yow mooy lan. Mhm. léegi quand à yow mu laajte yow yow ñi fa nekk. Mhm est-ce que ça veut dire que man dama jàpp ni yow defuñu dara. Mm. mooy yow bindoon naa leen lettre. ma dañ leen jiin ay association de malfaiteurs. wante man dama jàpp association de bienfaiteurs mm. association de bienfaiteurs parce que gisoo fa mooy koo xamante ça veut dire que dafa yori puso ji wala fa ko xamantene dafa amone sax intention ça veut dire que def lu mal moy sénégalais uh-huh. amu mm-hmm. ça veut dire que lan mo fam amna ño xamantene tukki nañu waaw nee nañ dëkk bii diine mm-hmm. dem nañ fa mm-hmm. gisunu fa lolu ñom ño ñibé ci sen bop moy sénégalais xamuñu loolu ñoom ñoo ñibbee si Mais… bopp te encore le moy le plus pire amna ño xamantene bu ñu ñibbisee pendant une année moo di Mohamed Ndiaye fii la toog une année di liggéey ak ñeneen ñoo xamante ne si boppam. bu ñuy yow ñëw di mhm. dire que police da leen jàpp. Mhm. téye leen. Mhm. ñu laaj leen fii leen fii leen gis mu xam ambassade du Sénégal moo leen wutal vol leen avion ñu jaar lan moo ko waral parce que jamono boobu xaalis bi duggagul woon. 80 mhm. milliards yi ñëwagul woon. Mhm. amuñu woon intérêt si kii leen jàpp leen xam nañ ni defuñu dara ñoom si boppam Sénégal ñoo leen dugal avion indi leen ñu nekk fii ñeneen ni dellu mooy tan di jàngi. Mhm. bi nga xamante ne nag bi nga xamante ne xaalis bi. bi nga xamante ne xaalis dem na ba dugg. waxuma la ñoom de. képp koo xamante ne xam na leen sax yow yow dañ lay dañ lay. dañ jàpp mais Saliou mais mais kaw Saliou Ndiaye par exemple. nga xam ni dañ ko ne jili Saliou Ndiaye. dañ ko atte ci kanamu baar bi xamal nañ ko jiñ lan lañ ko yoon tëjee

Mm. bokk nañ pendant presque une année bu ndaw. Mm-hmm. pour wane ni à dire que lu may wax ci moom man xam naa mm-hmm. Akim Mbawo bopp bi dafa dafa. feebar dafa dafa dafa dafa dof dafa feebar ñu jégalu xel bi dafa dem. te administration pénitentiaire. Mm-hmm. ñoom ñoo koy anama léegi mais foofu jili moom dafa taxaw ci kanam baar bi maa ko seetaan ci procès mu taxaw ci kanam baar bi mais di wax waxi dof ñu xam ni kii wérul ñu tey 15 ans lañ ko tëj 15 ans lañ ko tëj 15 ans lañ ko tëj te loolu foofu yow la moo ci gën a grave ah la moo ci gën a c'est que yow Sénégal dañuy bàyyi yéen mbiru ndaw yow mi ngi c'est-à-dire que avocat dafa demander papier yi administration pénitentiaire pour ñu indi ko jugement ñu ñu bañ papier yow ça veut dire que mooy yu mu doon demee hôpital mm-hmm. avocat doon dem mooy administration pénitentiaire bind lettre ne man dama kii dama soxla ay papier am non c'est que am parce que yow mu nul quoi. d'accord léegi euh, d'école. d'école ñu euh, ñu hmm. nga ba ma bàyyi nga développé heure bi hmm. mu ngi ñëw. non dama ko bëgg a laaj benn euh, question. waaw yow bi nga génnee. Hmm. maanaam sa situation maanaam sa soxna ak say doom maanaam seen mentalité. ak yow bi nga génnee aussi maanaam sa am-am ak sa famille instant bii nii. Euh, ndax boo leen doon dimbale ba mu yàgg nga tëj si kaso bi mën ngaa dugg doo yorete xaalis ak ban état d'esprit la sa soxna ak say doom am. waaw ñu jël dernier appel bi laataa may tëj téléphone bi allo bonjour. allo bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér. waaw egg si la ak jàmm. waaw émission bi maa ngi ko doon déglu dëpp boobu léegi. Mhm. am na solo trop maa ngi ziar Abdou Karim Gueye. ñu ngi lay ziar bu baax auditeur am laa xool bi moom mooy loolu. Mhm. tur bi. rafet tur bi euh, euh, Niga Babs la mais Mbaye Faye la quoi dëkk Cambérène 2. d'accord Niga Babs. ma am lu ma metti trop. Mhm. mooy yoon nu muy doxalee ci réew mi. Mhm. démb dama gis action bu doy waar. dama wàcc liggéey. sama nijaay expliqué ma benn cas. ne ma waa commissariat golf. ñoo jékki-jékki la dugg suñu kër te man maay responsable chambre bi. waaw. ñu ñëw ne dañuy dugg ci néeg bi. Hmm? vérifier ndax amul lu bon. Hmm? jël sama hmm? loo xamante ni. ah moom mi ngi doon wax lu am solo ah yéen koy dégg mu ngi doon wax lu am solo moom euh, rëcc na donc euh, Djily ma bàyyi la nga développé. waaw non dama ko poser question rek c'est ban état d'esprit moom nga fekk sa famille. si lañ nekk waaw bon bu leen fekkee moom yàlla euh, baax na ko bon bu leen fekkee bon euh, moral bi ñu ngi ko yoroon. Mhm. bon pare nañu pour mu ñu leen teg yow quoi. Mhm. pare nañu pour mu ñu leen teg yow départ à zéro quoi. parce que moom instant yi moom da ngay ñëwaat départ à zéro. émission bi euh, euh, d'accord ñu ngi remercier daanaka euh, émission bi jeex na mhm. di wax ni émission mardi style mbedd mhm. dina dalal décolle incha allah du yàgg dara ñoo toog ñu def gën a yaatal gën a yaatal gën a xóotal ci wàllu terrorisme mhm. beneen gis-gis ak yëpp rabbi di ko remercier baax a baax di fàttali auditeurs yi yéen a woon ci bët set buy am lundi ba vendredi sept heures ba dix heures Sista Ida Abdou Karim Gueye Aliou ak Jëli Bagdad tey ñu dalaloon décolle Ndiaye décolle maa ngi remercier baax a baax a baax di la baalu ax la mooy kàddu yu mujj yi naam naam waaw kàddu yu mujj yi xam naa dama koy jëmale yow yow si ñoo xamante ne yow kii kii naa leen foofu bàyyi naa leen fële. de kon day benn jàmbaar la de. trop trop. Mm-hmm. jàmbaar la trop. Mm-hmm. dama koy jëmale si ñoom mooy euh, ci ñuy tuddee ki waa kàmb ji kàmb ji lañ ko tuddoon. parce que dañuy wax ni c'est-à-dire que. Mhm. gis nga euh, euh, teen. Mhm. c'est-à-dire que yow loolu fay dugal mooy yomb na. Mhm. wante yow loolu fay génnee mooy yombul quoi. loolu loolu fay génne yow pour un rien yow mun nga fa dugg. wante rek rek yow génn bi mooy yombul. may profité si kii bi occasion bi. pour euh, di wax le cas Moustapha Diatta. Mhm. le cas Moustapha Diatta ça veut dire que dafa dayo mhm. yow dafa dayo yow togn yow deux ans et demi. Mhm. dara. yow nga am taxaw devant tous les Sénégalais ne non dafa am quoi pour teewaat ko do do xam quoi pour kañ. doyna na tu pour ko boo xam mooy comme lu comme lu waa moy di wax rek. nañu mhm. moytu lan nañu moytu lan injustice. ça mhm. veut dire que injustice mhm. conséquences yi kenn xamuko ko. yow kenn xamu ko quoi kenn xamuko bon bon loolu laay kiiwee rek yow tejé moy di len nuyu ñom ñoom ñëpp. Euh, waa Kamb ñom ñëpp bon bëgguma di lim boy peut-être di. kiiwaale fàtte wala ñu xam ne ñun dal suñu xel. wala wala te le combat continue. c'est très important ok merci.